ñaata yoon laa la woo Adamo man fekkuma ak yow ay saaga ndey dama bëgg mu leer man dama ne la nga génn ci sama vie man loolu xaritoo ma ko àndandoo ma ko kafu ma ci réew ma ci dama ne waxal ak ñi ngay waxal nga génn ma ci ku la neex na mën nga tudd turam fan yëpp ba nga dugalee kaawu góor jigéen ñi laa la woon ne la Adamo bàyyi li wax yi nga dem toppatoo sa soxla nga liggéey sa liggéey faale woo ma respecté woo ma waaye nag du ma nangu nga may saaga man ku dul yow sax du ma nangu may saaga yaa ngi may dégg man nag ku ma xamoon mooy dugg ci man waaye ku ma xam dëgg dëgg dëgg soo tëddee di nelaw suñ la yee ne la am soo ngi ñëw di nga yeewu sekkuma ak yow ay saaga nday sekkuma ak yow ay wax di delsi jàmm ak salaam laa fekk ak yow ak kaf ak ree doo ma dépassé du la dépassé waaye nag du ma ngay dugg ci benn live di ma saaga na leer de dinaa woo léegi Wally Seck nag wax ko li ma koy wax mu avertir la wax ak yow nga génn ci man mën naa may lu nekk nit ba mu def ay saaga nday encore une fois fekkuma ak yow ay saaga nday dama bëgg na leer waxal ñi ngay wax nga tudd seen tur sama yoon nekku ci kenn parce que man bokkuma fee kenn day ak baay ànduma fee kenn ma fee kenn bootuma kenn ma ci kenn ci benn vie sama vie laa soxla sama bopp laa toppatoo boobu ba tey yaa ngi saaga nit ñi ku nekk yaa ngi tudd turam waaye nag dama ne man def ma xarit moo gën def ma doon man kenn noonu ak man xam nga lu ma bëgg nga toppatoo sa soxla nga toppatoo ñi ngay toppatoo nga saaga ñi ngay saaga yaa moom sababu ku la neex saagaal waaye sama tur Amzo Zo bul ma dugal ci gaam bi sama yoon nekku ci yaa ngi may tooñ nag te bugguma am ak yow problème boobu ba tey ñu ngi lay ruux naan la Amzo Zo am Zo ah maa ngi lay wax nag te li ma lay wax dama la ko dama bëgg nga denc vocal bi pour ëllëg si nga xam ne am doo mi kat waxoon naa ak man man nag samay wax du bëri sama jëf moo bëri aadamoo xam nga lu ma bëgg bul ma saaga ndey te bul wax samay wax te bul koraf sama laayin Amzo tey yéen ñëpp tey lay toj seen lafal ndey tout yow ak kuis ak euh,